li ñu bañ nag moom mooy jàkkaarle jiw ak suuf bu kee joxe jiw kee joxe suuf rek moom mu daal di aay ñu nangu mukk kee joxe jiw kee joxe suuf moo tax mu ne bu fekkee jiw kenn kaa ko joxe kenn ko joxe suuf sa moo xam nag moom ma joxe suuf sa mooy bool moo cee bool liggéey wala ñooy bokk liggéey te bu ñoree ñu séddoo kooku moom dagal ci takk-takk jàpp ne kenn nangu rek kee joxe jiw kee joxe suuf moom nañ koy aaye saa yu nekk ba tey nag ñu seetluwaat bu baax ne dañuy bañ ku luyee suuf di ca fay loo xam ne xeetu ñam la mbaa loo xam ne sax suuf a koy saxal ni ki xeetu bant kon li ñuy wax joxe ndoxum tool wala tey boo bëggoon rek kenn luyee la ay toolam la nga koy jox di ko ko fayee ci luyaas ba bu mu doon lu mel ne xeetu pepp wala xeetu ceeb mbaa daal benn xeetu ñam rek buy nangu mu nekk la ngay fay ca luyaasu suuf sax walaw kaana doonte nekkoon na ñoom ñaar ikkatarayaa di luye al arda suuf sa wal badru te jiw wa min indi waahid bàyyi koon na fa kenn waxalal aaxal te war ka ca des alxamal liggéey ba jaasa kon mu dagan isa taqaarabat ndeen jegeente na xiimatu daalika xaymay loole kenn ki moo joxe jiw wi kenn ki féetewoo mbayum tool ba ñu luyee suuf nag léegi mbaa ñu dogal leen ko xam ne ñoo bokk moom suuf sax suuf si moom ñoo ko bokk ba noppi moom kay joxe jiw nag kay féetewoo liggéeyub tool yi kon neen yooyu jamono bu fekkee jiw daa jafe bañ gis ne loolu war naa yell kon de su ko bañ daañu nangu kee joxe jiw kee moom bay ñu séddoo waaye nag ci sartu moom ma nga xam ne mooy féetewoo mbay ma bu mu doon kay joxe suuf sax su fekkee daal boobu jiw daa jafe ba nga xamee ne ku seet am aw jiw na muy jafee dana war a wecci coono mbayum nawet ba kon loola baax na ndax day mel ne kon kenn naxut sa moroom waaye lu yàgg-yàgg nag ka nga xam ne mooy féetewoo mbay ma ba mu doon koy joxe suuf sax ndax ñoom dañuy bañ lool jàkkaarle suuf ak jiwu saa yu nekk mbirum mbay nag métier mu metti la te xaw a day waar waaye dañoo wax ne bari na tuyaaba lool lool ba addis ba na ko muslim andee wax ne maa min muslimin yaxrisu xarsan wala yasrahu zarxan fa yakulu minhu insanun wala dabbatun wala shay'un illa kaanat lahu sadaqa fi ñu bind illa kaanat boo fi defee taa ci benn net li bi dañu nettale illa kaanatil ukkulatu lahoo sadaqa am na nag beneen net li boo xam ne illa kaana rek lay doon amul at dane ab julit saa yu jëmpatee dara mbaa mu bay lu ca lekk rek moo xam doomi aadama la moo xam daaba la moo xam leneen la lu ca lekk rek yàlla bindal ko loolee muy tuyaabay sarax walaa yunqadu deful teewal fii kiraayi ardin ci luye suuf xayri mamunat suñu suñu wóolu xabla am turwaa njëkk deefi ko màndal booy luye suuf ba koo bay te muy suuf soo xam léeg-léeg mu teggeeyu maa léeg-léeg du am ndox bañ bañ mën koo bay ne kon duñ nangu nga fay fi saasa buñ sarte ne faaw da ngay fay fi saasa rek mu yàqu bu dee suuf soo xam ne nag moom daawul teggeeyu benn yoon mbaa daa dend dex goo xam ne daa dend rek dex goo xam ne moo koy suuxat mbaa machine tubaab yi moo fa nekk di ko suuxat nga xam ne wër na ni moom dana am ndox ba ñu mën koo bay kooku mënees naa teewal payut boo dee luyee suuf sa wa mën ni bu taaxa ku jënd samaratan meññet fiiru aussi shajar yi ci bopp garab ya ci kaw garab ya rek fa uji xatte jiyaalif ko bi baradin ci tawam yóor aw jaraadin wala ay njëreer aw jalid wala ab lay aw xëyri yi mbaa lu dul moom kon ñu seet fay ujji xan yëpp jiyaaleef na xadru sulis kem ceer ba fa ak saru topp lu ko ëpp wam dexa kon sipeef xanil mustal yi wul fi ak jënd ja xadru zalik kem loolee bi na tamane ci njëgga nee na boo jëndee meññet moo xam ne ñoroon na nii rek ba mën ko jënd waaye agutoon ci wow ca garab ga ba nopp ne yàlla andi ci jiyee jiyee mooy loo xam ne kenn mënu ko woon a moytu niki mu jekki-jekki taw taw yóor mooy taw bi sànni ay xeer xeer glace yooyu mbaa ay njëriñ ñëw fa rek bopp ko mbaa lay bi ñëw fa yàq ko kon dañuy seet la nga xamne mo ci yaqku bu fekke ko defal ñett xaj mat ben xaj ci ñett xaj bu xasse mat la ci yaqku bu xasse mat ciir bu ba mo ko rek ñu wañal tol non ci jëg wa ma lo xamne naqas yesna hani sulusi wali ciir ba fo min al mutatahi tukke na ci aji jënd ja fekke na xol la ci yaqku nak mutu ciir ba sax boko defal ñett ñett xaj mat ben xaj ba kon kenn la ci baal dara da ngay fay jëggu mat kenn la ci wañ dara ci jëg wala jaihata dit fi sarhi muy nek ci bay bay mom melni suuna ak sañu du am jee ndax bala ñu koy jaay daa wara ñor boobu bala ñoo sañu jaay bay day àgg ci ñor boobu moo tax kon nag loo xas jaay fekk bu ñor boobu moom kooka rek dal na koy moom bu ci jee amee gannaaw bayit moom mooy ñàkk rek wala fii maa du caa génn ci loo xam ne usturie jëndeef na ko baax la an jabis ci gannaaw ba mu woowee mi na simaari ci xeeti meññet yi xeeti meññet yi moom ba mu nangu jee mooy ana bañ cee nangu jiyee mooy ba nga koy jënd booba fekkutoon bu ñor boobu ñu ko waxe woon léegi waaye bu fekk ñoroon na boobu moom itam gannaaw bu ci jiyee dara it kenn la ci delloo dara yow mi jëndoon rek yaay ñàkk wa tootaxu def na sippi yaa ixatul buqooli jiyee yi lujum ya wa in xàllat ak doonte néew na xeet lujum ñoom dañuy jàpp ne mel ne sobleeg karoot ak xeet yooyu bu fekkee da ngaa jënd tool bi noonu ci war koo buddi yóbbu xam nga da nga di fekk léegi toolub ñam bi ñu jaay la ko nga xam ne koy buddi dem jaay wala toolu pomme terre ba xeet yooyu daal yooyu moom lu jëyee ci néew néew ñu wàññi la ko waaw bu ko seeti am lu ci yàqu la ci yàqu lu néew néew rek ñu wàññi la ko ci njëgg teewul nag wax yi la waxees na ne laa yoo daxu deful sippi illa qadru sulis rek am ceer ba am nañu ne dañu seet la ci yàqu bu tolloog dañu seet la ci yàqu bu matee benn xaaj ci ñetti xaaj boo ko defoon ñetti xaaj mat ceer ba moom lépp ñoo yemoo daal am nañu ne daal moom lépp yem am nañu ne moom lépp yam bala ñu la bala ñu la caa wàññil dara la ci yàqu mat ceeru lépp lépp waaye dafay matu ceer ba kenn la ci wàññil dara am nañu wax loolu waaye wax bu njëkk bi moo gën a wóor lu mu néew néew rek lu ci yàqu ñu wàññil la ko ci njëgg wa man aara ku yarale ku yaral samara naxalaatin meññati ay tàndarma di rajulin ñeel waay rajul day firi góor waaye bu doon jigéen tam mbaa muy gone it atte benn la min ci naani yi ci ay toogaram muy ay toolam rek fala ba sa ayut an yashtariha mu jënd ko ana mu jënd meññat yooyee isa asat ndéem wicc nañu wicc mooy xong ca jëm ca ñor di xar si xaaj ci nataleem tamran muy tàndarma jow yoo tey ci dana ko jox daalika loolee hindal jazaasi fa góob ga in kaana dem nekk na fiihaa ca ñoom xamsatu aw soqi juróomi wasq fa aqal lu topp lu ko yees fala basa an yashtariyaha ji mu wax ayut mu jënd ko ayut mu leb ko rek ca tooyaay ba lu bëgg wax boo yaralee nit ay meññet tàndarma te mooy nga ne ko jox naa la meññeti tàndarma yee kon bu tàndarma ya demee ba ñor wicc moy xong jëm ci ñor da nga yittiwoo ko bu la neexee lepp ko dañ koy gam-gamle mooy fi xarsiha tamran dañu ron tàndal ma gune gam-gamle lee mu meññ ci tooyaay bu demoon boobu nu mu war a toll buñ ko defee tàndal ma yépp nag seet ne moom lépp lépp nangam la war a toll yow mi maye woon meññe tàndal may nag nga lepp ko jariñoo bu àggee ci góob nag fay tàndarma ji wow nga xam ne kon ak jàpp ndal la tax dafa mel ne weccente maanaam jaayante lu tooy ak lu wow te it nekkul loxoog loxo kon am na jàpp ndal ci kaw nag mu tolloog juróom benn bari ko mbaa mu bañ koo mat wala yajuus du dagan shiraaw ak sara jënd lu ëpp min xamsati aw soxin ci juróomi wasq illa bin xayni dara ci kee kee mooy wuru sa xaalis wal xardi ak marchandise da cee jublu lu bokk tëg wuru sa xaalis su fekkee lan ko mayoon ci ay meññeeti tàndarma kat buñ ko xaymaa dana ëpp juróomi wasxu kon bu la neexee jënd ko ca boroom ndegam tàmbali naa ñor mbaa ñor na waaye kon da ngay fay njëg goo xam ne nekk wuru sa xaalis mbaa leneen lu bokk tëg wuru sa xaalis waaye duñu nangu rek nga leb ko ni ñu waxoon léegi bo agge ci say tol ñor nga diko fay dedet duñu nangu sax bu fekkee dafa ëpp juróom benn barigo ngay leb lu tolloo juróom benn barigo da ca topp nag nga di ko fay wurus mbaa xaalis sax duñ ko nangu bu xasee ëpp daal juróom benn barigo moom faaw rek man nga ko jënd waaye da ngay fay jëgugu wurus mbaa xaalis mbaa leneen waaye duñu nangu rek nga nga leb ko ci gam-gam le bu say tool ñoree ngay fay lu tolloo gam-gam le ga baabun li ab buntu la fil wasaaya ca ndénkaan ya wal mu dabbari ak kañu gannaawal wal mu kaatawi ak kañ jotonteel wal mu taqi ak kañu goreel wa umil waladi ak umil walat wal walaay ak kilifteef ba ñi taal séer yi boobu daa fekk wàllu njaam xew lool yaatu lool wuteeg léegi gannaaw boo weesoo ndénkaane yi mu wax yim ci teg yépp ci wàllu njaam la aju jaam buñu gannaawal ak jaam buy jotonteeku sangam ak jaam buñ goreel ak umul walat umul walat mooy jaam bu jigéen boo xam ne ab sangam daa am ak moom doom ak kilifteef kilifteef mooy buñ goreelee ka doonoon jaam ba tey kilifteef ga day am ku ko moom nga xam ne dana andi sax mu doon ko ci bu ko waree doon ñu fàttalee ne nag jaam ci lislaam moom mooy ab yéefar ñu woo ko ne ko ñëwal ci lislaam mu bañ ñu ne ko nangu la jox galak lislaam te bàyyi la ci sa diine nga bañ a xeex lislaam ngeen juboo rek ci nga nekk ci sa diine te kenn doo laal lislaam lislaam du la laal waa lislaam du la laal mu gàntu yaar yëpp ñu wëlbatiku xeex ak moom nag ba gañe ko waaw kay kookee nag bi yàlla dogalee ñu def ko jaam nag loolu mooy jaam ci lislaam li amoon fii ci réew mi nag moom daanaka ëpp doole rek mooy ci ëppoon nga xam ne jaami aada rek la waaye du woon jaam ci lislaam dëgg-dëgg waaye xequ dana yey xalaaman ci ka nga xam ne lëxooy ñal na ko maa loo xam ne yoosi dana dénkaane fii ci moom an yu waxit da mu waajal wasiyataxoo dénkaaneem ba koy wax an yu dañ koy wax an yu waxit da mu xaroo waaye xaroo mooy waajal rek daa wax ne boo amee loo bëgg a dénkaane ci sa alal war nga koo wax ba mu leer soo ko mënee bind sax sàkkal koy seere moo gën daañu la may nag saal buñ ko defee ñetti xaaj benn xaaj ba loo ci bëgg a dénkaane nga mën ko caa dénkaane ngir boo génnee àdduna ñu defal la ko caa ñaari xaaje nag moom way doon yi ñoo ko moom boo dénkaanee ba mu nar a laal ñaari xaaj ñooñu dañuy laaj ñay doon bi nangoo wéyal loolu baax na bi nangoo tëyal nag duñ sañ a weesu sulus ba muy ceer ba say dénkaan du mën a weesu ceer ba wala wasiyata deetub dénkaane liwaari si ñel aji doon daa bëgg wax ne ku la war a doon doo sañ wax ne bu ma fi jógee nañ ma ko joxal nangam niki sa doom mbaa sa soxna mbaa sa baay mbaa sa yaay moom ndegam yoon jox na leen cër rek cër boobu doy na doo sañ wax ne bu ma fi jógee nañ ma leen joxal nangam te ngay wax ne ma ko joxal nangam ci sàll day fekk muy koo xam ne bokkul ci ña war a doon wal wasaaya ndénkaane ya xaar yu jët aji génn lañ mina sulus ci sulus ba wayu raddu def na delloo maa la nga xam ne saada ëpp na xale ci sulus ba illa an yu jiisawoo ndare bu da ko wéyal alwarasatu way doon ya yenn dénkaan yi nga wax dañ la koy génneel ci sa ceeru alal waaye nag bu naree ëpp ceer ba mooy la nga wax bu ëppee ceer ba itam dañuy laaj way doon ya nga xam ne ñoo war a moom ñaari xaaj ci des buñ nangoo wéyal loolee nga wax baax na buñ ko nanguuta wéyal nag ni ma ko waxee woon léegi dañuy seet sulus ba rek jéem caa seet ndénkaan yi nga wax nuñ ko cay doxale waaye duñ ko sañ a weesu wala it ko goreel bi xëy nii ci jëmmam mu badda woon lu ñu jëkke la xale haa ci dénkaane ya daa wax ne bu fekkee daa dénkaane su ma fi jógee sama jaam sàngam nañ ma ko goreelal mbaa jaam sàngam nañ ko jënd goreelal ma ko loolu mooy goreel gu ñu ràññeel ci jëmmam kooku nee na bokk na ci njëkk ci dénkaane ya bu fekkee ndé bu fekkee sulus ba nar naa xat nañ njëkki goreel ku mel noonu wala mu dabbaru kuñ gannaawal fi si xatu ci wér mu badda woon lu mu ba dawn kuñu jëkke la xalaamaa ca la nga xam ne fil maradi nekk na ci biir tawal ja min xirxin ci ak goreel waxee lii ak ludul moom bu fekkee ba muy wér dara dalu ko daa am ab jaam bu mu gannaawalam gannaawal mooy mu wax ne sama jaam bi mu fi jógee gore na wala mooy gannaawal bu fekkee am na ku mu gannaawalam noonu ci wér ga nag ba mu tolloo ci tawal ja itam am yu mu dénkaane kon dañuy seet bu fekkee li mu dénkaan daa xat dañuy njëkkee kookee mu gannaawalam ci wér ga moom goreel ko mu génn doore jàll ci yeneen yam dénkaane ci bi tawat ja moo xam goreel la moo xam leneen la waxalaama ak ci la nga xam ne farrata sàgganoon na fii ci moom mina sakaati ci asaka fa awsaate mu dénkaane bii ci moom fa inna zalika naka loolee mu badda on luñ njëkke la fii sulus yi ci sulusam ba xalal wasaaya ci mboolem dénkaane ya ba tey sax nee na bu fekkee am na comme gannaaw lañ ci wér moom la ñuy jiital sax bala ñoo génne asaka jum dénkaane dañuy génne kooke mu gannaaw lañ ci wér waaw fekkee daa wax nañ ma génnel asaka kat ndax asaka waroon na ma waaye fekk na am na kum gannaaw lañ ci wér du tee tam gannaaw lañ ci wér moom lañ njëkkee loolu génn asaka joojee mu wax moo tax mu ne dellu ko baamu wa mu dabbaru sixati kuñ gannaawal ci wér mu badawun kuñ njëkkee la xale yi ci moom ko baamu waar rek wa ita daaxandeem xat na ab sulusu sulusu ba te xaasa kon sompoo ahlul wasaaya ñooñ dénkaane ya allati ya nga xam ne laa tab di ati deetu jëkke fii xaw mi nekk ci ñoom ndegam sulusu alalam mënta matale dénkaaneem nañ seet yam dénkaane woon lu ne ñu laal ca dara rek ni ki bu fekkee dane woon nañu ma joxal diw nangam joxal ma diw nangam joxal ma diw nangam dañ seet ne loolu lépp xaju ca kon dañuy seet kenn ku ne loo mën a am rek jox la ko te bañ laa jox dëgg-dëgg yi la waxan wali rajuli ñeel na waaji arru jox dellu xan wasiyat yi walis dénkaaneem ba min xeqin ci ak goreel wa xëy yi ak lutlu moom boo xasee dénkaane ba àggal na bu la neexee génn ca ne man kat maa ngi waxal ne bu ma fi jógee sa alal dafa leen ma ci nangam waaye bàyyi naa ko loolu duñu wax ne rek boo xasee dénkaane doo ci sañ a deltu gannaaw ah kay mën nga caa deltu gannaaw kay warta di biiru gannaawal ay yàqoola mooy bu waxee arrajulu waaja li xam te yi ñeel ab jaamam ne ko anta yow mu dabbarun ku ñu gannaawal nga aw anta wala yow xorrun gor nga an duubarin wala si gannaaw min nii ci man su ma laay juus topp du dagan la xooñeel ko bay xoo ak jaayam wala xooñeel na ko nag xidmatu xoo ab liggéeyam gannaawal moom nee na mooy nga wax sab jaam ne ko yow day gannaawal naa la mooy su ma faatoo rek gore nga ku mel noonu nag nee na doo ko sañ a jaay waaye nag sañ nga koo liggéeyloo doo ko sañ a jaay waaye sañ nga koo liggéeyloo wala xooñeel na ko it intisaahu maalihi nangu alalam ja maalam yam rabb li fekk tawatu tawati faatu ba tey sañ ngeen nangu alalam li fekk àggul ci tawat tawati faatu wala xooñal na ko wattuwaa laalam nga in kaanat ndem nekk na amatan di jëkkeef bu fekkee jaam bu jigéen la man ngay joteeg moom wala yattaw du sañ a laal al mu taqata kañu goreel ila ajalin jëm ci bàpp wala yabiixuwaat du ko sañ a jaay wala xooñal na ko an yastaxdimaha mu liggéeyloo ko wala xooñal na ko it an yentasin mu nangu maalaha alalam maalam yaqrub li fekk jegewut al ajalu àpp ba su fekkee daa am sa jaam bu jigéen boo wax ne ko buñ àggee ci dele sàngam ma goreel la kooku doo sañ a joteeg moom doo ko sañ a jaay itam mën nga koo liggéeyloo nag mën ngaa nangu alalam ba tey li fekk nga xam ne dele ba nga ko war a goreele jegewut bu jegee ba tey doo sañ a nangu alalam wa isa maata ndem faatu na wala mu dabbaru kañ gannaawal min sulusi yi tukkee na ci ceerub alalam wala moo taxu kañu goreel ilaa jël jëm ci ab min simaali si tukkee na ci léppi alalam daa wax ne kum gannaawal ne ku suma faatoo gore nga lay tax kooko gore mooy mën a génn ca sulus ba léegi bu ko waxee loolu ba noppi bari bor ba nga xam ne bu fayee da ci yem képp mbaa du matal kon su boobaa kookee mu gannaawaloon du gore ndax ab sulus amul sax ba mu cee mën a génn faaw day aajowoo mu xaj ca sulus alalam kum goreeloon jëm dele nag moom faaw dañ koy goreel moom su fekkee ne faatu na moom mi ko goreeloon jëm dele dañuy jekki-jekki rek daal di koy goreel moom mañ goreeloon jëm dele dañuy jekki-jekki goreel ko ne ko yow bokkoo ci alal ji daal ngay gore rek duñ seet ba xam waaye amee na bor wala amewuti bor dañuy jekki-jekki rek génn ko ni moom bokkut gore na wal mukaata bu kañ jotoon del xabdun ab jaam la maa baqee li fekk des na xaale yi war ko cheyun dara jotoonte mooy jaam bi akub sangam ñu waxaale ba juboo ci sang ba ne ko soo ma joxee nangam day gore nga ñu seet nu ko koy joxe nag moo xam nañu koy def par weer mbaa par at mbaa par genn wàllu weer juboo ci mu koy si jox nangam nangam ba keram yi mat li fekk loolee li fekk muy joxe loolee ba mat nag ba tey attib jaam lay amee su ko joxee ba mat nag lay door a gore wal kitaabatu jotoo jaay satul aji dagan ndax xalaamaa ci la nga xam ne rob yeexoo gërëm na ko alhamdu jaam ba wa sayidu ak sang ba minal maali ci alal mu najje man mbir mu muy lu ñu biddiwal maanaam muy lu ñu àppal xallat moo xam néew na al mu joom biddiw ya muy àpp ya aw kasurat wala ñu bari daa wax ne njotoo moom jaambeeg sang bi mën nañ ko aayut dañ ko sopp sax ndax lislaam daa bëgg lépp lu tax a gore lislaam da caa xiir loolu moo tax kon nga jotoon teg sa jaam dañ koy sopp loolu nag mooy ngeen juboo ci mu jox la nangam ci alal te gore bu ko defee ngeen seet nag par délai yam la koy jox délai sàngam mu jox la nangam délai sàngam mu jox la nangam moo xam délai sore na moo xam délai jege na fa in xaja sa ndem lott na rajax mu dellu raqiqan mbir mu muy ab jaam waxal la te te dagan mooy te lew la xooñee sang ba maa la nga xam ne axasa jëloon na ko min fu ci moom su ngeen juboo ci mu jot boppam mu dem ba ci biir mu tëlee mooy lam la la ngeen waxoon ci mu jox la ko mu dem ba ci biir mu tëlee ndax la ngeen waxante woon mënu la koo jox kon day delluwaat doon sab jaam nam ko doone woon te lam la jotoonoo jox ci alal lew na la doom day mel ni sa alal jaam rek la sa alal jaam lew na la wala yu xaj ji sufoo du ko lottal nag illa sultaan ndare atekat jullit ba baax da talaw mi ci gannaaw mu ñëndiku ga itam tanaax ndem bañ na mina temps ji sa ca lottal ga nee na soo ne ko yow kat tëli nga lan waxante woon mënoo ko mu ne la ah man kat tëliwuma mu ne ko na ngay àndam ba ci atekat jullit ba mu seet mbiram ba xam su fekkee am na yaakaar ci ne bu ko mayee dele dana mën a andi la nga ko doon laaj kon dana ko may dele ne ko kon may naa la ba li fekk sàngam nga gaaw nag fexee mottali alal njotoo gi su ko toppee topp nag xam ne kii moom tëli na moom àttekat ba moo koy wax ne ko yow kat àtte naa ne tëli nga delluwaat nga di ab jaam na nga ko doone woon su boobaa nag moom du mën a xëccoonte sang ba naa ko tëliwum mbaa dara wa kullu zaati rahimin képp kuy borom doom rek fa wala duxaa doomam bi mën silatihaa nekk na ci wàccukaayu yaayam min mu kaatabatin ci kuy jotoonteel aw mu dabbaratin wala kuñ ganaawal aw mu taqatin wala kuñ goreel ila ajal jëm ci bàpp aw marxoonatin mbaa ko ñu tayle nee na jaam bu jigéen bi bu amee doom doom jëm am ñooy bokk àtte bu fekkee su fekkee moom jaam bu jigéen bi daa fekkan muy jotoo kon doom jëm jur ci biir njotoo ga dugg na ci njotoo ga bu fayee lañ koy laaj rek daal di gore doom ja gorewaale ba tey buñ ko gannaawalee mu far am doom ci biir gannaawal ga doom ja dugg na ca gannaawal ga buñ ko goreelee jëm dele mu far am doom ci biir dele ba doom ja dugg na ca attewoo ba suñ ko taylee mu far am doom ci biir tayle ga itam doom ja bokk na ca tayle ga rek muy wee wa wala du umil wala di doomi umul wala min xëy sayidi bàyyi ko ci kudul sang ba bi mën si netiyaa nekk na ci wàccukaayu yaayam umul wala mooy jaam bu jigéen boo xam ne dafa dem ba amakub sangam doom kooku nag jëmmi doom jëm am ak moom moom gor la doom jëm amaat ci gannaaw bu ameekub sangam doom doom joojee mu amaat moo yaay ji ñoo bokk àtte nga xam ne bu yaay ji goree rek mu gore yaay ji nag moom ab sangam suñu ko jaay suñu ko def nen lu may téye ko rek bis bu faatoo moom sang bi mu daal di gore moom umul walat bi doom ju am na ci gannaaw ba noonu boobu àtte lay amee mu des nag doom jum am naka jekk te fekk booba amagul ak doom sangam bii waaw doom ja nga xam ne amoon na ko naka jekk te booba nekkagul umb wala ndax amagut ak doom sangam kooku moom jaam dëgg-dëgg la moom àtteeg jaam dëgg-dëgg la leelu dara ci ngoro wa maa li xam di àll li jaam lëxoo ñel na jaam ba illaa an yen tasi xaw ndare bu def ko nangu asayudu sang ba fa in ah taqoo ndem goreel na ko aw kaatabaxoo wala mu jotoonteeg moom wala mu yestas ni te seetewut maa lahu alalam fa lay sa lahu de di ko ñeel ay yen tasixaxoo mu nangu ko nee na jaam alal ja mu yor sañ na cay soppandiku waaye nag dañ ko moom moom alal ja mooy sang ba moo ko moom moom alal ja bu ko sang ba nangoo sañ na ko waaye nag bu ko sang ba goreelee te néewu ko kat daay téye sa alal daay jekki-jekki ne ko goreel naa la rek kon jaam ba day dem yóbbaale alalam ba tey bu fekkee ab sangam daa jotoon teeg moom te néewu ko nag li may laaj nga jox ma kat saal bokku ci saal daa koy téye ba noppi nga jox ma nangam leeru lul loola kon bu ko jàmba joxee loole rek jàmba day dem yóbbaale alalam bu ne ko woon nag boo ma joxee lii du tee damay téye sa alal nag waaw su boobaa kon daa seetee alalam kon dana sañ a nangu alal ja ci gannaaw bañ jotoo ba jàmba joxe lañ koy laaj ba noppee walaysa lahu di ko ñeel wata umuka tabatihi laal ka muy jotoon teelam sa jaamu jigéen boo tàmbali jotoog moom nag jeex na ne comme tàmbali nga wax ko ne ko jox ma nangam te gore doo sañ joteeg moom ni ñu joteeg soxna wama loo xam ne xaddasa sosu na lil mukaata bi ñeel kuñ jotonteel ku góor wala mukaata bati ak kuñ jotonteel ku jigéen min wala dun ci doom daxala mu tàbbi ma xuma ànd ak ñoom ñaar fil kitaabati ci jotooga waxataxa te mu gore bi qiima ci seenu gore soo nañ ko wax léegi jàmbu góor bi jot boppam wala jàmbu jigéen bi jot boppam kat ci biir njotooga bu ci amee doom doom ja dugg na ci njotooga nga xam ne bu goree moom jàmbu góor bu mbaa jàmbu jigéen ba rek doom jëm ci am ci biir njotooga daal di gorewaale wata joosu dana dagan kitaabatu jamaahati jotoog mbooloom jaam wala yu taqoona te defu leen goreel illaa bi adaa il jamii dara ci jox mboolem alal njotooga nee na manees naa waxanteeg lu mat ñaari jaam ba lu góob ne leen jox leen ma nangam daa goreel leen nga xam ne ñu alal njotooga ñoom ñëpp la këpp ci seen kaw ñooy seet nag nuñ koy joxee kenn ku nekk kem sa kàttan rek da nga mën a fàggoo noonu la ñuy séddale alal njotooga kenn ku nekk joxe ci nangam ba mat su matee rek ñoom ñëpp ñu gore waaye nag li fekk joxewuñ lépp lépp kenn du ca gore kenn mënu caa gore te dañoo fay lépp lépp ba mat walaysa lil mukaata bi te diñal kuñ jotoonteel xet kun goreel wala itlaafu maalihi du caa génnu sànk alalam xataa yoo taqa ba te dee fi ko goreel wala yetasawaju du sañ a takk wala yusaafiru te du sañ a tukki asafara tukki ba albani da bay aji sori bi xeyri idni sayidi yi ci dul ndigalul sangam ci lu dul ndigalul sangam nee na tàmbalee jot sa bopp dong nag te fayagoo lañ lay laaj taxut nga sañ a goreel ab jaam xam nga jaam mën naa am jaam ne moom ndax booba jaam alal rek la kon nag jaam mën naa am jaam ne moom waaye nag moom jaam bi jot boppam te noppeegut bu amee jaam du ko mën a goreel ba tey du sañ a sànq alalam lu may daa fay liñ koy laaj ba gore ba noppi du sañ a jékki-jékki rek sànq alalam noonu te fekkuwul mu fay liñ koy laaj du sañ a jékki-jékki takk soxna du sañ a jékki-jékki tukki tukki bu sori te amu ci ndigalul sang ba ndax tàmbale jot sa bopp rek taxul dara sottee ba ba isaa maata ndem faatu na wala xóote ñeel ko wala dun doom xaama mu taxaw ma xaama xoo ci taxawaayam wa waddaate mu jox min maalihi ci alalam maa la nga xam ne baqee desoon na xaalihi war ko xaal lan mbir mu muy aji teew wa warisate doon man ka nga xam ne ma xoo ànd naag moom min wala dihi ci ay doomam maa la nga xam ne baqee des na ki doon jot boppam bu fekkee dafa faatu waaye bàyyi na fi doom kon doom ja day taxaw taxawaayu baay boobee wala yaay joojee doon jotoo bu ko defee bu fekkee la bàyyi ci alal mën naa mottali alal li jotoo ga kon na doom ji jël ci alal joojee mottali ci alal li jotoo ga su ko defee ñoom ñu war a doon nag bu dee benn doom bu dee ñaar bu dee ñett ñu daal di miraas doon la des ci alal ja wa in lam yëkkun ndéem nekkut filmaal ci alal ja wafaawun ak matale fa inna wala daxoo naka doomam ya yees xaaw na danañu liggéey fii ci moom wayu addoona te ñuy joox mu jooman ay bitiw mooy ay àpp in kaanoon dem nekk nañu kibaarante ay màgg bu fekkee ne nag ki doon jotoo daa faatu bàyyi na fi doom waaye la bàyyi ci alal moom mënta mottali alal jotoo ga waaye doom ya mag lañu mën nañoo liggéey ci alal ja kon degam alal ji mënta fay la des ci alal jotoo ga ba mat kon nañ téye alal ji ñoom doom yi di ca liggéey tey fay ndànk-ndànk pardele yi nga xam ne moom la seen waajur woowee daan fay wa in kaanoo dem nekk nañu nag sixaarandi ay gone wala sa filmaali teej den mi nekk ci alal ja xadru nujoomi kemu biddiw ya kon ilaa buluuxihim jëm na ci seenu jot assan ya mën a liggéey raqoo mbir mu ñu nekk ay jaam ba booba bu fekkee ne ka doon jotoo faatu na bàyyi na fi ay doom bàyyi fi alal waaye alal ji mënta fay la des ci alal njotoo ga mooy lam bàyyi mënta fay la des ci alal njotoo ga te it doom ya ay gone lañ fi saasa saasa mënuñu caa liggéey kon dañ fay def kupp alal ja bàyyi ko fa ba doom ya nekk mag ba mën a liggéey ci alal ja su ko defee nag bu nekkee mag mën caa liggéey nag daal di liggéey ci alal ja daal di mottali alal njotoo ga door a gore nag waaye ay jaam la ñu doon ba booba wa in lam yakun dem nekut lahu diko ñeel mom ka doon joto wala dun doom ma wa and mom ci kitabati jotom nga wari sa ko don ko sayyidu ho sangam ba ka doon jot boppam bu fekkee dafa faatu bàyyi fa alal waaye nag fekkutoon mottali alal njotooga lam fa bàyyi itam nag mënta mottali alal njotooga waaye yàlla def na furul am doom ba doom cee taxaw taxawaayam kon dañuy wax sang ba nga xam ne moo ko moomu ne ko ba tey lim bàyyi yaa ko moom rek da koy jël ci kaw sab jaama faatu nga jël ko ne sax du ko doon ci kilifteef loolu mu ne wari saxoo kon doon ko sayidu ko sangam ba du ko doon doon kilifteef ci ak njaam la faatu kon day jekki jekk jël alal ji rek ci kaw moom nga ko moomoon mu di ab jaam ba nim faatoo wa man awlada ku jural amatan jébéer fa lahoo ñal na ko an yastam ci xamu bànneexu min haa ci moom fi xayaa ci ci dundam nga wa too tax ko te def koreel indil